maa ngi leen nuyu bu baax yéen ñëpp yéen waa site bi yëpp maa ngi leen nuyu di leen moom lu ma koy wax rek bëriwut maanaam na gëstu jiwaat daal mooy waree fam parce que li muy wax noonu yëpp du xam-xam parce que li muy wax noonu yëpp maanaam comme waxi ay waxi mbedd lay wax wala waxi ay waxi xale daal su ma doon moom daal lu bu kee fekkee bëgg na jotee jiite réew mi dafa war a dem liggéeyaat am xam-xam indi ay idée parce que dëkk bi léegi idée moo koy jiite boo amul idée rek doo jiite dara yi muy def ni na amul sens su ma demoon daal maam mu xoolaat bi muy waxee ak ni muy communiquer yooyu daal moo gën si moom parce que ay dégg naa ko barki dem muy wax si mbiri saak saak loolu yu jigéen la loolu yu fi góor jigéen ñi ñoo am jot nekk taxaw di xool saak bi di jënd saak bi ni mu demee ak ni mu mais jigéen góor gu bëgg a jiite réew doo nekk sax si dibaayu debaawu saak débaayam daal war na ko xoolaat parce que lu muy wax amul benn sens saa bu Sonko génnee mu génn wax te moom lu muy wax maa maanaam waxi xale rek lay wax te moom Sonko di waxee waxi lu jëlee réew mi kanam lay wër parce que mu barki démb bi waroon naa wax si discours jumaay euh, bi mu defoon France parce que discours bi amal na njëriñ Afrique mais waxu si dara lu muy wax saak lay wax saak bàyyi fa lu njëriñu réew mi di wax si ay saak xam nga lu amul sens. télé bi moom da ko war a defaraat parce que télé bi moom lu benn njëriñ Sénégal télé boo xam ne duñ fi waxtaanee waxtaanu Sénégal waxtaanu dagg sant rek lañ koy waxtaanee plateau boo xam ne ay dagg sant rek lu amul sens. waaw <laughs> maa ngi jégalu gars yi nag ñu leen bàyyi wax kër dof yi na leen nañ wax TFM rek kon kii Sen TV waaw bañ leen wax kër dof yi mais daal war nañoo xoolaat ni ñuy doxalee. parce que am na jigéen bu ma fay jur ñi koy wax Fatou Abdou Ndiaye xaw wax n'est-ce pas moom borom xam-xam la su ma sañoon itam maanaam ñu gën koo respecté xam nga di leen ñuy wax idée di wax xam xam li nit ñi mëna jëriñ lu mëna ñi mëna jëriñoo mais pas wax wax yi waxi dof yoy parce que li ñuy wax dañuy dem ba maam dañuy bëgg suñu waxe sax da nga yaakaar ne fen dafa dagan sénégal parce que yi ñuy wax no ay fen yo xamanteni waaw wax yo xam amul lu ñu benn jëriñ wax yo xamne boy daf comédie sax ñoko ñoko ñoo doon daf mais ñom léegi ñom ñoko jël diko daf seen plateau lu amul sens ma ngi lu nag kon japp nga ni mënul nekk ben yoon li de opposition wala tout non non Sonko moom mën na ko daam opposition ku koy opposé léegi non parce que ñii ma gis ne amuñu xam-xam mu opposé ko. te Sonko lu dañ ko fal pour ñu liggéey faluñ ko pour mu nelaw dañ ko fal pour muy liggéey ku bëgg a liggéey nag di nga am loo yàq di nga am loo yàq dëgg la ñun ay sénégalais lañ dañuy liggéey. parce que fii nii nii trottoir la ku nekko war a jaar mais nag kuy bëgg ku ne di nga am loo yàq. ñun tey bu ñu yëgatoo bu ñu defee dañuy dem feneen rek wuti yàlla baax na ku nekk foo dem rek da nga ko ci fekk yàlla mais bu bu bu ñuy defar am ñu yàqaale te fi bu ñuy defar am ñu yàqaale am ñeneen ñu taxaw ci gannaaw naan sonko lii la ñu waxoon nag waxuñu woon lii loolu amul sens ñun dañ ko fal pour mu liggéey falañ ko pour muy noos wala pour muy nekk ci bureau bi di dallu dañ ko fal pour mu liggéey Sénégal Sénégal na bu ko bëggee liggéey foog ñu ñu yàq defar ko. góor ñaan Gora Niang. waaw Gora Niang la. ok Gora que mën nga ñëw ñëwal encore ci coow saag bi. Ah, coow saag de ci internet bi laa ko yëgee comme ñëpp euh, mais li ma ci xalaat rek mooy Bougane moom séntuwuñ ko ci lu mel noonu quoi waaw parce que moom kilifa la te am na am na loo xam ne daal bi privé jàmbur loolu war a ci mën a dugg quoi même parce que. sac bi nee na moom prix bi muy jar noonu bon ñu bëri nag weddi nañ ko nee nañ sac boobu jarul loolu ba génn seen prix teg waaw parce que moom euh, dafa war a depuis ci régime bële passé ñu ko doon dégg quoi muy wax ci ci ci affaire politique mais heure bu génnee rek dañuy dégg ni moom wax na benn toj-toj quoi wala wax na benn benn erreur boo xam ni bon mooy loolu quoi parce que moom communication waaw. commune moom ni mu jàppee affaire bi ak affaire bi nu muy amee du nekk benn ko waaw moo tax chaque fois moom bu defee génn rek day sur day surprendre ñu bëree bëri loolu la demee quoi. donc yéen xam ne dañuy jaay fii ngi am na ñu koy jaay fii à côté yi moom bon ñi ngi koy jaay fii quoi mais man saag boobu moom. bon man xam nga du jaay ko saag mais ñi ma ko gisee si internet bi rek laa ko gis mais nee nañ saag bi cherul ay quarante mille la jël xam nga trente cinq mille waaw kon moom dafa def erreur moom ci ay boo xoolee ay erreur rek lay def quoi waaw ci ay détails yu sew yoo xam ne ñun ñii ñun ñii sénégalais lambda yi ñoo ci woon di di nekk quoi moom séntuñ ko ci woon ci affaire yooyu noonu waaw parce que moom booy waxoo sax waxam waxam du am du dal quoi waxam amul portée parce que waaw moom amul doole noonu quoi day forcer waaw kay day force day forcer affaire bi quoi mhm. te affaire bi du noonu affaire dañ la nit ñi ñu si boppam sénégalais ñoo la war a bëgg bëggal seen bopp quoi su fekkee muy après nga leen di wax loo xam ne da leen di jëriñ mais soo dul wax loo xam ne chaque fois rek da nga dama contre waaji rek lu ma neex laay wax wala damay wax chaque fois loo xam ne da koy déstabiliser moom loolu moom bon du am benn sens quoi après sax tey loo ah lu ma koy conseillé mooy mooy moom moom mag la kilifa la. te dafa jiite. jiite groupe de presse bu rëy bu am bu am doole. xam nga léegi nag balaa muy génn di wax benn affaire mu xool ko xoolaat ko xam nga parce que ñu ñoom kilifa yu doon ñoom dañuy am ay staff derrière yoo xam ne dañ leen di dañ leen di teg ci bon ci yoon quoi wax leen conseiller leen daal. mais suñ ko deful nag ñoom seen fug rek lañ topp toppee seen fug nag ba ñëw wax loo xam ni bon day déranger sénégalais yi sénégalais yi mere leen si te du ko jar ko noo gisee Bougane Gueye fan yi li muy génn di attaqué le premier ministre Sonko ak euh, son président bu Diomaye à chaque fois ñu génn wax dara rek moom day génn daal seen kaw est que jàpp nañ ni ñoom noonu la wax a mën a opposé pour mën a jot si nguur waaw maa ngi lay nuyu di leen si aar ñëpp ah waa Sud bi ah. Bougane moom li mu def moom séentu nañ ko feneen fu foofu ko si bawoo ma yaakaar naa war naa xool leneen lu ay saak wala ay kii si bawoo loolu foofu ne ndax moom mënut a wax ni dafa bëgg réew moo pare moom muy ñëw di débaase ay débat yi ndaw yi ay saag ak ay ji ñàkk yooyu amul sens si boppam lépp sens mooy mu jéem a def ni comme ni gars yi def si boppam mhm. liggéey. jéem a fexee yor réew mi si boobu waaw maa ngi koy gis temps tamit muy wax si jagartamaa yeeg ak ambulement yi waaw loolu tamit tamit dëgg la tamit mais loolu daal moom séntu nu ko si côté yooyu si boppam. ko si côté hmm. lañ koy séntu fan ngeen di moom mu liggéey bu bu liggéey woon ànd ak waa parce que weesu na fii bu yàgg si boppam a waroon liggéey si boppam hmm. waaw. kon jàpp nga ne opposé nekkul tout le temps rek di contredire ki nga ki nga jàngaarloo mais des fois mën loolu moom man ah, jàppale ko si liggéey bi parce que lépp Sénégal la. waaw waaw man li ma ko jisee tax mooy bëgg bës rek moo tax muy wax si ay saak. Mhm. ndax Bougane dañ koo fàtte woon si boppam. Mhm. pour te dire. Mhm. dañ koo fàtte. bëgg bës moo tax muy wax ay saak ay kii yi si boppam séntu na ko feneen tuuti lool. opposant du chaque jour lu ndaw rek di la jénne quoi si boppam. exactement waaw moom grandeur bi mu am. ay ah, ñak fay mëna tay baña jenn quoi di wax ñu bari sax ñu ngañ télé bi naan ay ni fay def sax amuñu crédibilité ñu fay nek ak yoy amuñu ay crédibilité wala amuñu li tax tay mom moy qualité bo xamantene mëna tay télé bi comme programme bu wax waaw programme mom dama fay sétan man télé yoy tax danaka moy lool mom mm-hmm. mo amul ma ci wax yefam la quoi mo xam lu ñuy tek ak yoy ci bok